Aminata a ngi nii ñu di ko séen ci Facebook WhatsApp Instagram ak YouTube ñuy wax ni ku tedd ki Seexul Xadim la keroog ba ñuy teg xeeru jumaay njaareem dem ba koy wéral naan Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci téereem bi ñuy wax na Nadim indi na ci naka la Serigne bi tege woon xeer wi lépp dafa méngoo ak photo yi ñu seen tax na yenn ci taalibe yi di ci jeexi jaaxa ci seen xel ak di ko laaj fu ne moom laaj du moom. rédaction TH TV def ci ab gëstu bu am solo waxtaan ci ak Serigne Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou mi nga xam ni itam yépp mooy yaatal njàngaleem sëriñ tuuba mu wax ci gis-gisam. waaw Mourtala maa ngi lay dellu nuyoo waaw Fatou bi nga may laaj nag moom ci suba ba nag sama téléphone nopp nopp ku ne ku ne ku ne yónnee na ma dama laaj. lu ci sama gis-gis ma tontu la tontuwaale daanaka rek ñi may laaj ñep nak man ci sama jëmmi bopp nag am naa droit nak lima gëm ne mom la gëm lima ma mané man goom na far bi sëñ bi wëddu ma ngëm-ngëmu kan nak ku ne señ nga gëm ne waaye man ci moko ko ba chambar ko jangataat ko bu baax baax ñaar la ci am yoo xam ne man naa caa sukkandiku mu ndur ma sëñ bi waaye amaan naa ci fukk yuy tax ma weddi ni du sëñ bi loolu nag tax na daal bu dee dëgg rek man góob ne sëñ bi waaw ba keroog ñu may indil nag luy tax ma nangu ko waaye ba fii may ma ne sëñ bi daal laa ci ne moom ku am nga droit nag nga seetla la ci doy nga ne sëñ bi ndax sëñ moom jullit yépp ko bokk murit yëpp ko bokk. bu ma ci gisee ñaar yuy tax ma man koo teg sëriñ bi. gis naa ci fukk yuy tax ma weddi ni du sëriñ bi weddiwuma xalaatub kenn ak gis-gisub kenn waaye li ma gëm laa wax te ku ne sañ na ko muy waxin wu maandu li fekk indiwuñ lu gën a leer lu mu mën a téye lii lay jàpp te sax dëgg nag mbàkke lii mooy li nu mën a jàpp seen ndongale Mourtada Gaye fii ci Touba TS TV Touba xarasahallahu